téléspectateurs yu télévision Futur Média ñuy jéggalu bu baax a baax ci yéex door gi dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki ca Madinatul Salaam nag màggal wi nga xam ne soxna Aida bëggoon na ko fa amal préfet bu Mbour daal nay lankal moom moomee nag lu ni mel li mu xam xamle moom moo di moom moo taalatin buggul bâche wala boog ay chaise yoo xamante ni dañ ko teg ci li nga xam ne moom moo di xàlluwaa naka noonu itam muy sàkku ci way takk der yi ñu daal koy lankal mbir mu ni mel ñaari doomi aadama ak lu tollook fukk ci ñoom nag am ci ay gaañu gaañu ñaari doomi aadama yooyu eh, daal di génn àddina nag ci autoroute eh, Ila Touba bi nag eh, accident boobee mi ngi dox ci diggante benn ndaamaar particulier ak itam benn jegeñaay woo xamante ni ma nga taxawoon ca weg ga li nga xam ne moom moo di lakk-lakk wi amoon ca pak lambaay ni ki guddi gaawo jàpp di dibeer nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule jamono yi nag ñu ngi ay sëngéem mënuñoo sax nak wax wala bokk ñu xayma yàqu-yàqu yi nga xam ne am na fa waaye mbokk yi jàppale ne ci lakk-lakk boobee amul benn doomi aadama aadama boo xamante ni euh, daal di ci ñàkk bakkanam coowal suuf fi ci réew bu Sénégal min ngeen ko lool ci dégg-dégg ba tax ñenn ci ay député ak itam société civile bi nag daje woon ca Mbuur ngir daal di xool ana nan la ñuy def ba rek lu ni mel doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fi ci réew bu Sénégal daañu dem ca diwaan bu Touba fekk fa équipe bi nga xam ne moom moo fa toogal euh, télévision Futur Média euh, soxna Fati yaakaar naa ne mi ngi ci rek di waajal ngir daal di faram-fàccee li nga xam ne moom moo gën a fës ci yile jotaay bàyyeekoo ca dëkku seel wa ji Cheikh Diop maa ngi lay fay nuyu téléspectateur yu télévision Futurs Médias xibaaru màggal yi ak ponk yi ci gën a fës juróom-benni doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ci accident loolu nag euh, brigade nationale bu sapeur pompier ñoom ñoo joxe bi de xabaar ñu ne sax ñenu gis ne loru nañu euh, seen lim solu na ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak euh, juróom-benn su weesoo loolu juróom-benn doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan. beneen ponk mbokk yi muy lu jege ñaari téeméer yoo xam ne takk der yi euh, wax nañu ak ñoom bokk na ca euh, mbir yoo xam ne des nañ ko def ñu ne sax euh, lu toll ci lim bu takku ci ay doomu aadama itam tëye nañu leen ndax ñàkk takk seeni masque loolu nag di li tukkee ci opération pré màggal maanaam waajtaayu màggal ga ñu nekk ñoom sunu takk der yooyu lee beneen itam mu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak unité d'alerte et de prévention di kuréel googu nga xam ne Euh, xalif général bu tedd bi moo ko fi teg ngir ñu xeex mbas mi ñoom nag wàcc nañu euh, ci mbeddi Touba yi tàmbale ko ci bërëb bi euh, mag bi muy jumaay Touba ji waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ak itam solos takk masque ak daandanti ko ak itam raxas say loxo Cheikh li may ponk yi ci gërëm ba si kanam tuuti ñu ñëw yaatal. ca bu Touba ak itam fii ci Ndakaaru yaatal gi léegi léegi mbokk yi. jërë ngeen jëf mbokku télévision yu Futur Média dal leen ak jàmm ci yile jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu dem ko jukkee dina bokk ci ñaari doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci autoroute illa Touba lu toll fukki ci ay doomi aadama itam am ci ay gaañu gaañu accident boobee mi ngi am ci diggante wenn ndaamaar particulier ak itam benn njëganjaay woo xamante ni ma nga taxawoon ca wegg ñaari doomi aadama yooyu nga xam ne jot nañ cee faatu nag jamono yi nag morgue bu hôpital régional ba fa jàppaleen ne boobaak léegi nag doomi aadama yi nag ñu ngi sàkku ci ñoom ñu daw ndànk dal ndànk ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bu ñu door yi la jotaayu xibaar màggaluk Medinatul Salaam xam ngeen ne soxna Aida foofee la bëggoon amale mbir mu ni mel ba tax itam bu Mbour daal na ku koy dakkal li mu xam xamle moom moo di moom moo taalatin bëggul bâche bu sampe wala boog ay chaise yu tege xumb ba tax itam muy sàkku rek ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di way takk der yi ñu daal di koy rek euh, respecté mbir mu ni mel euh, soxna Aida jàppale ne mbokk yi du amal màggal gi euh, foofee nga xam ne moom moo di ca Medinatul Salaam. ñu wéyal yile jotaayu xibaar xam ngeen ne guddik euh, gaaw a jàpp dibeer pàkk wu làmbaay ma nga doon euh, lakk nag lakk-lakk wu yàgg woo xamante ni am na fa ay nit yoo xamante ni nag seen i ay bagage daal na ci yàqu ku ci mel nii Mbay Njaay moom moomee nag jamono yi mënul sax xayma li nga xam ne moom la yàqule ba taxitam muy rek woote wallu wala boo ko ñu jéemi pexe ba lakk-lakk yu ni mel nag gëcc ca pàkku làmbaay Alxasan Ba ak Jaafara Ba bi ñu xëyee delluwaat nañ ngir xool la tukkee ñu seetaan reportage te des ci lakk-lakk bi nga xamante ni am na fii ci parc Lambaye mu di ab lakk-lakk bi nga xamante ni ni ki dem nag ci guddi ay booru vingt une heure la tàmbali Mbaye Ndiaye kenn la ci ñiy jot a ñàkk seen i marchandise ci bërëb bi. ay vingt une heure la ñu ñëw téléphone di ñu ko wax boobu sax wàcc nañ ba ñibbi bi ñëwee dañu ko ñëw. mu ngi par exemple ay ay ay presque daal ay 11 heures daal ñoom ñoom heure la ñuy ñëw quoi ñoom en général lan moo fi nekk comme marchandise. waaw amoon naa fi bitik ak ay ak ay ak ay yeneen marchandises divers quoi maanaam ay tuiles ay bant ay adois yooyu yëpp dama ko doon jaayale ko doon waajal bésu sëñ bi ba préparé léppam ñibbi eggagul Pikine sax ñu woo ko ne ko lii am na. si cooy na famille la jabar ay jabaram ngi ni suñu famille sama yaay fii toog sànq di jooy. yàgg na fi lool fii rek la xam ndax yàlla dafa def sax ba mu bàyyee école rek la tàmbale nekk fii amul beneen métier la dul lii. kon lii bu ko dalee tey dal ay moroomam ak ñum fi nekkal ñëpp xanaa dañ koy méttitu rek. dafa naa suma juumul bi mooy ñeenteel lakk mais nag lakk bi moom dafa ëpp. mu mel ni butikam yëpp moo dem ak yeneen place yi nga xamante ni amee woon na ko fi jafe na lool nag ñu mën a xayma li nga xam ne nag moom mooy li ñuy jot a ñàkk mu mel ni kon ay millions yu bëri ñoom ñoo dem. xanaa kenn ku nekk daal yow li nga yàqule di nga xam ne lii la yàqule waaye kenn waaye kenn mënu ko xayma. à l'instant moom mënuñu ko xayma mais jombul kenn ku ne boo demee sa kër bee xoolaat dinga nga mën xam au juste ñaata nga yàqule. lépp a lakk dara desul dara génnul bitik baa nga ni gis nga tabax bi suukar bi ak diwlin bi ak saabu yi ak lépp moo fi des waa pompier sotti nañu ba sonn. mbay nee na dellu na boppam ci yàlla. teewut mu ngi sàkku ci njiitu réew mi mu gestu leen. yàqule moo gën yàqu. bu yàqoo moom daanaka dootoo dootoo boo bokkati ko waaye vraiment ñi ngi sant yàlla comme kenn gaañuwu ci waaw ñi ngi sant yàlla yàlla daal mi ñu nga xam ne moo ñu ko mayoon yàlla mën na ko indiwaat. président bi nag comme day dimbalaate rek yàlla na leen yàlla def mu am xol mu dimbale leen. depuis démb ci guddi nag moom mbay mi ngi fii taxaw ak ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci njabootam ñëw nag ngir indi seen njàppandal ñoom ñëpp nag taxaw di seetaan lii nga xam ni mel na ni ñoom mënuñ ci dara. Alxasan Ba yàqule moom moo gën yàqu keneen koo xamante ni nag yàqule na Ibrahima Diouf lay wuyoo naka noonu itam jiit bu bokk moomeel bu Dakar Plateau demoon na foofe ngir daal di xool mbir mu ni mel dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibou Diouf li nga xam ne moom moo di image nag Vallée Info moom moo ñu ko baaxe place ñetti place yëpp ñoo lakk. dara dafa tàkk ba seey waaw dañ ma woo téléphone sama kër parcelle laa dëkk ne ma paaka bi mi ngi jàpp ma jël taxi ñëw fekk fi sappoor ak police may ñu ma dugg may naxante naxante naa ba taxaw ci kaw tali bi ñu soog ma mën a bàyyi mais lakkale naa fi lu bari. su ma ko xaymaa man sama alalu bopp rek ëpp na 12 million sama ñaari magasin li ma fi def ëpp na 12 millions. ramaas nañu fi li ma gën a naqari guddi. ramas boo ko jëlee li ma xam ci droit man da ko yóbbu fourrière su amee trois mois boroom fay jot ci su fekkee mat na trois mois te fayul yoon sañ na ko jël wanteer ko loolu dañ ko perte. moom xam naa ne da bu dee ci ay cause parce que xaw ma ci lu bëre xam naa ni daal euh, ab métit la tiis la boo xam ne dalati na dama naan dalati na suñu suñu kaw parce que. gis nga ci biir quartier la ne amul ay voie d'accès amul ay organisation pour la sécurité ba pare day fa am ay activité yu cohabité yoo xam ne waru ñëw cohabité maanaam loo xam ne day lakk rek ak ay source de chaleur fu ñuy toggee ay gaz et cetera te loolu saytu woon nañ ko ci commission de sécurité dama jàpp ne nag jot na quand même ñu xool yenn yi waxtaane ko mais quand même dafa am ay réalité on est dans une zone urbaine boo xam ne et là c'est réalité donc dafa jot maintenant quand même que yenn yi xëy na ñuy bañ di ko wërwërloo pour waxtaane ko parce que bu fi bakkan desoon tey ñëpp dañ naan autorité yi la. maa ngi leen ko doon junj mbokk yi bi ñu door jotaayu xibaar coowal suuf ci mim réew miin ngeen ko lool ci dégg-dégg ba tax itam ñenn ci ay député ak itam société civile daje woon ca diwaan bu mbuur amal ab waxtaan xool ana yan saafara la ñuy daal di lal ci wàllu woowee Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ci reportage. boo jël juróom benn ci ay suuf yu nekkee ci Sénégal rek la ñu daal di mandargal mu doon mbir mi nga xam ne bokk na ci luy indi coowal suuf ci dëkk bi. tey boo déggee Dodel nga dégg Fane nga dégg Mbane nga dégg Dengaleer nga dégg littoral nga dégg côté Mamel tey nga xam ñeengeen nga xam ni donc aujourd'hui Richard Toll et cetera donc nga xam ni tey donc problème suuf problème bi nga xam ni def nu yitteel président sax wax na ko ka bu waxee ni taux d'alerte bi quatre vingt pour cent yi. mi ngi wax ngeen ko léegi mi ngi toll si affaire problème suuf nga xam ni tey Sénégal daf ko war a jël au sérieux et ñun pour ñun amul lu gën a am solo donc euh, problème yi. li di mel sax a tax ñuy waajal député yi ci ab réforme foncière bu bees dinañ leen tàggat sensibiliser leen ci fànn boobu. xam nga tey wàllu suuf ak wàllu mbay ni mu nekkee mbir boo xamee dafa taxaw ci Sénégal surtout bi nga xamee ne dañuy jógee ci Covid bi nga xamee ñëpp ñu ngi naan. Sénégal war na gën a góorgóorlu ba am li nga xamee ni ni muy bay li nga xame moom lay dunde ba li nga xame dafa ëpp sax ñu koy jaay ci bitim réew loolu dafay tax nga xam ni lii ñuy waxtaanee tey am na solo ndax nit mënul def dara te amul xam-xam kon nag daje fi tey waxtaan ak borom xam-xam yi professeur université yi nga xam ne dañuy jàng am xam-xam mu màcc ci wàllu suuf ñu ñëw sottante yi ak ñun xalaat ak expérience bi ñu am ñun itam ànd seet li nga xamee moo baax ñu def ko ay recommandation defe naa loolu am na solo. parlementaire yi ak ñu bokk société civile ñoom ñëpp bokk benn kàddu di xam le ni jamono ji ñu toll war nañu xoolaat mbirum suuf si. Abdourahmane juróom-ñaara ci ay commune nekk ca Pakao ca département bu Sédhiou ay ndaw ya nekk nag ñoom ñoo manko doon wenn say li ñu bëgg moom moo di gën a ñoŋalaat lépp lu ñeel wàllu développement woowule gox ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa agence régionale bu développement ñoom ñoo daal di ah, ëmb ndaw yooye nag ci wile liggéey fas yéene na leen cee gunge Boubacar Diassi Bakary Konté ak Xaali Jàmme ci reportage. ñaari communes yi nekk fii ci diwaanu Pakao ñoo booloo nekk benn daal di boo xamante ne intercommunalité la. te boo xoolee tam suñu euh, euh, collectivité territoriale bari na ay ay ay incohérence incohérence xam nga nu ñu koy waxee ci olof mais am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañu leen boole te vraiment wax ma waru leen boole mais am na ñu la gën ñu lee gën a jege donc yooyu yëpp bu ñu bu ñu ko xoolee si biir entente bi euh, mun nañu régler problème yu bari par exemple aujourd'hui su ñu buggee def benn centre de santé ñu ñëpp bu ñu mbooloo. ñu ne bëgg nañ centre de santé sur ak Pakao mais ñun ñooy xool foo xam ne vraiment moo gën a euh, ba baax ñu ne fii lañ koy implanté. conseil départemental bu Sédhiou ak ARD dina dinañ encadrer projet intercommunal bi loolu nag pour ñu mun a développer gox bi. conseil départemental dina am njëriñ foofu donc di liggéey ak maire yi surtout ci wàllu entente pour mu liggéeyal ko compétence boo xamante ne moom la yeyoo président de la république moo ñu ko sant 2015. puisque ñun suñu communes yi du ñu ay communes yu am doole ay communes yu néew doole la ci la ñu ne pour ñu booloo suñu doole pour mën a jël ay projet yoo xamante ne dinañ amal njëriñ population daanaka loolu lañu ñu nekk di doxal ne. Ibrahima Fall préfet département Sédhiou daal di présider cérémonie signature convention bi le. communes yi nekk PACA suñu àndee ñoom dañ koy doxal dañ koy mettre en œuvre loolu dañ koy rafetlu dañ leen ci war a gunge donc ci loolu lañ nekk nii processus bi dina continuer te entente boobu bu taxawee dina dina tax entente bi mën a jël encharge charge question yi nga xam ne day concerner communes yëpp te commune bu ko ci bëggoon jël moom moom moom kese en day métti ci moom donc loolu mooy njëriñu entente bi donc si des questions précises ñu mën a ci def ay ñu mën a def ay ay réalisations yi nga xam ni dina nekk dina amal njëriñ askan wi ci wàllu développement. population yi nekk fii ci diwaan bi daal di rafetlu convention bi ñu bëgg nag projet en entente intercommunalité bi mu daal di jël jafe-jafe yëpp yoo xamante ne ñi ngi koy am fii ci diwaan bi mu jël ko en charge loolu nag pour axe PACA bi daal di développé ci nu mu gën a gaawee. ñeneen ñoo xamante ni nag bëgg nañoo ñongal ndax xam ngeen ne lii di coronavirus am na ay njeexital yu bari yoo xamante ni daal dina koy def ci askan wi ba tax itam FONGIP ak itam IMSEC daal di ficc ci lu tolloog téeméeri million ci suñu ay koppar jéggal jébbal ko ay soxna yoo xamante ni ñu nga nekk ci commune bu Sandiara naka noon it caaw jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu miin ak itam géologie moom Sophie Gladima daal di ficc lu tolloog ñaar fukki million ak juróom daal di koy euh, jébbal yenn ci ay soxna yoo xamante ni ñu nga bootu ci euh, ñaar fukk ak juróom benn regroupement nag dal di leen koy jox yu nekk sa Joal ñu teewlu reportage. yu sew sewaan yu mel ni mécanicien menuisier ak xeet gi ni mel wala bokk lu jëm ci wàllu mbay ci commune Sandiara IMSEC ak FONGIP na dinañu joxe lu toll ak téeméeri million ci sunu koppar. bu ñu IMSEC waxee ni mu ngi fi liggéey liggéey bu am solo mu ne soxla na taxawaay état taxawaay kuréelu état taxawaay FONGIP pour mu jàppale ko mu gën a jàppale waa Sandiara ñun teguñu si baat ñu nangu ko ah, moo tax tey ñu ñëw fii ah, commencé si di te gëm nañu ah maire bi lu mu ko waxee ak ambition am déwén dina fi ñëw ah, téeméeri million bu ñu indi ti nii tey déwén ñu indi juróomi téeméeri million ci Joal bi yor wàllum mine ak géologie moo daal di lebal lu toll ak ñaar fukk ak juróom benn groupement jigéen Aïssatou Sophie Gladima li mu bëgg mooy dimbale soxna yooyu ci fànn bu ñuy yëngu. tey ji 26 groupe ñu war a génnee fii tey groupe bu nekk 1 million la yeneen yi day euh, le directeur de cabinet dina si ñëw muy département bi ñu war a tofal suba ak feneen ci loolu lañ nekk groupe bu nekk dinañ la jox 1 million mais waxuma la loolu ku ci nekk motivé na la tuuti rek. pour nga ubbi compte. soxna yooyu mécanicien yi menuisier ak xeet gi ni mel ñoom ñëpp di rafet lu koppar yi nga xam ne jot nañ ko ba noppi ñuy xam le ni dinañ ko jëfandikoo ci anam gu jag loolu rek ngir ñu mën a fay bor bi ci ni mu gën a gaawee mbokk yi ñu ñëw eh, ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb amul benn doomi aadama woo xamante ni génn àddina ci eh, mbas mi ginnaaw bi eh, junni ak téeméer ak fanweer ak benn ci ay test yoo xamante ni def nañ ko ñaar fukk ak juróom benn cas positif la ñu am juróom-ñetti ci ñoom di ay cas contact fukk ak juróom ñaar la ñu am ci ay kaa communautaire jàppale ne lu tolloo ko juróom fukk ak ñeent ci aji tawat wér nañu daañu ñibbi fa nga xam ne moom moo di seen ak makkaan dellu ko tout tànk yi ci li nga xam ne moom moo di daara yi ak itam ñaa ngi leen li jàngal nag ñu ngi ko àpp ci weer bu euh, novembre ki nga xam ne euh, moom moo di directrice bu agence nationale bu euh, petite enfance ak itam cas des tout petits moom Thérèse Faye di xam xamle bépp matuwaay woo xamante nii rek war nañ koo jël ci jamonoy mbas mi daañ ko jël ba mu mat sëkk ngir tout tànk yooyu mën a dellu ci classe yi ci li nga xam ne moom moo di jàmm dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Thierno Fall waaw yu ñu jël foofu dañuy gërëm bu baax a baax a baax di remercier euh, la coopération coréenne moom mi nga xam ne après daf ñu defaral benn subvention supplémentaire jaarale ko ci UNICEF nga xam ne seen liggéey ci mbir mi dafa am solo trop ba fii may wax ak yow école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay structure de petite enfance nekk ci ñaari région yépp wutal nañ leen lu ñuy wax dispositif de lavage des mains wutal nañ leen ay saabu yi nga xam ne moom la ñuy soxla ci at mi ak eau de ñuy soxla ci at mi ak li nga xam ne moom mooy sax masque yi pour jàngalekat yi loolu nag boo gisee ñu def ko parce que xam nañ ne que ci pandémie bi lañ nekk te balaa ñu cee sori war nañu mën a euh, jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat bi beneen appui bi nga xam ne aussi am na solo te projet bi def ko mooy fii ñuy wax ak yow IA ak IEF ñaari département yi ak cordination régionale u case tout petit yi nga xam ne yoo nekk ci ñaari région yi équipé nañ leen vraiment ay mobilier de bureau ay ordinateur imprimante loolu yëpp day tax rek euh, agent nit ñi gën a sawar gën a farlu Euh, kuréel euh, wi di soppeel euh, soppey al amin ca diwaan bu Tiwaawan ñoom ñooñee nag fas yéene gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe murit yay dem ca dëkk wu selwa di Touba Mbacke naka noonu itam ñu daal di leen jébbal ay masque yoo xamante ni daañ ko mën a takk ngir daal di càmmonteek li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di santaane ci jamono yi naka noonu itam ki nga xam ne moom moo fa teewal xalif général kullu murit di rafetlu bu baax a baax lu ni mel Cheikh Anta Diop ak Seylatix ci reportage. bu soppey al amin at mu nekk bu màggal jub seede taalibe yi nga xamante ni ñu ngi dem Touba dañ leen daan gunge di leen jox ay ñam tey jiitee feebar bi nga xamante ni moom mu dugg ci réew mi di mbas mi tax na ñu soppi doxalin. ah di wax ne ren ku ne xam na ni àdduna euh, bi yëpp dafa am lu dal ci seen kaw muy euh, feebar bi nga wax xam ni moom la ñuy woowee Covid 19. comme ren dafa am hygiène boo xam ne moom la ñu exiger nit ñi ñu ne ah li xalifa sëriñ Muntaxa wax nañu ñëw ànd ci loolu mooy képp ku am lu mu leen di dimbalee na leen ko dimbalee ay masque loolu moo tax ñu xalaat ne ren il faut ñu indi doxalin wu bees waxtaan ci nag ak ki nga xam ne mooy xalif général des Tidiane muy Serigne Babacar Sy Mansour mu jox ñu ay ñaanam jox ñu ndigalam nañu kon lii mën ngeen ko wéyal ndax jamono lii la laaj. tey jii de ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe murid yi nekk fii ci Tivaouane bëgg nañu ci lool. ñu jot fii ci ay masques bari na. bariwaay boo xam ni euh, su ne Tiwaawan la jóge euh, jóge ci soppe al amin tàbb ci loxool xalif général des mourides Sëriñ Muntaxa Mbakke yooyu masque masque lay doon yoo xam ni dana wane lu bare bare bari du yem ci masque kese ndax dana masque dina ëmbaale loo xamante ni ak booloo la ak bokk goo xam ne am na kon yooyu masque nañu koy joxe mooy ni ko sëriñ bi digle xam ni dañ koo war a takk mu nekk jëf ju rafet joo xamante ni mandargal na jubo bi am ci diggante murit ak tijaan mu nekk loo xamante ni xalif général des tijaan ak xalif général des murit dëggal nañu ko di sàkku nag ci taalibe yi ñu jëfe ko ab taxaw seetlu ci xarala yu yees yi jamono yi nañ ak tam lan mooy ëllëgam lu ni mel tax na docteur Alxasan Ba daal di xaatim ab téere ibu Diouf ak Youssou Bara ñooñu daal di génneel la nga xam ne moom la daxañ ci wow la téere ñu seetaan reportage ci téere bi nag ñu taxaw ci bu baax a baax ci lu aju xarala yu yees yi kii di Alassane Ba nag ñëwaat na ci rek ngir wax ci li nga xamante ne noonu la mbir mi tëddee. lu ko tax a mooy xarala yu yees yi dañoo bëri te wute waaw soo xoolee téléphone mobile bi am na internet bi am na téléphone bi nga xam ne moom ngay woote sa bureau mooy fixe bi am na mm. yooyu yëpp ni nga koy jafandikoo ak ni nga ci accéder. processus technique yi bokkut léegi EMS moo mooy pro mooy benn architecture bi nga xam ne benn bi nga xam ne ci xarale yooyu yëpp benn identifiant rek ngay am nu la neex nga ci accéder. ñu ne nag nees def ngir ëllëgu xarala yu yees yi ñu mën ci am xam-xam bu yaatu loole nag dax nañ ko ci téere bi di ñëwaat ci li nga xamante ne. ëllëgu jumtuwaay yooyee noonu la war a tëddee. système bi nga xam ne identification bi nga xam ne la ñu yore léegi ndax sooy wootee. sooy sooy dem ci banque bi di wuti xaalis baa ngay woo nit ci sa téléphone portable identifiant bi puce électronique la maanaam da nga koy téye li ngay téye la dañuy def nag ba identifiant yi suñ lay pour ñu xàmme la ci fi nga jëm pour machine yi xàmme la identification bi rajo lay doon waaw mm-hmm. identi maanaam da ngay ñëw rek taxaw mbir mi di wax ak yow ngeen di weccoo xalaat daanaka médecine bi léegi nit ñi dinañ opérer à distance dinañ dem itam ba domotique bi dina gën a am doole kër yi nga xam ne soo génnee su nit ñi génnee lamp yëpp fay. ba mi di docteur en télécommunication gis na rek jot na nag doomu Afrique rawatina waa Sénégal dugal seen loxo bu baax a baax ci lépp lu aju ci wàllu bind ci boobu boobule fan. mooy xam nga ñun euh, africain yi mënuñoo nekk rek ay éternel consommateur il faut ñu wane ne nit ñi ñun tam xarañ nañ ci benn côté waaw. ñun tam il faut ñu participer si si ci bind il faut ñu bind wane ne nekk duñu ah, duñu consommer partout livre bi nag ñu waajal ko ay at yu bëri ci lépp lu aju ci wàllu réseau maanaam xarala yu yees yi mu ne nag dina am ay coppite waaye lépp lu ci bëri ngeen ne lu askan bi lay doon jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeena la xibaar wi ñu dàpp moom soxna Aida jàlloo ginnaaw bi ñu ko lànkalee mbir mu ni mel nag jamono yi li mu xamle moom moo di mbir mi du ci yëy yàbbi du ñàkk lépp di ay xibaar yoo xamante ni war nañ leen koo baaxee ci wàll wi daan ci dikk nu mu gën a yaatoo ñun ñun tam ñu jaare fa daal di buur yi la jotaay yëkkati ko rédaction bi di leen jox dig daje léegi léegi Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir faram-fàccee yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi ngeen woy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf